Mar Mar Yasin, por favor, por favor. yàlla rek daf leen ko nag maaleykum salaam papa daf leen ko nag rek may leen ko daf leen ko nag toogal papa arrière leen tuuti rek. Zimo Zimo ñëwal leen Amad ansal micro Amad ansal micro Jimo Jimo alors gars yi c'est parti mbokk xaritu internet yi yéen a ngi jàkkaarloog les Imo Afia ak seen yaay bu baax di toog yaa booy ñu ngi lay nuyu bu bàyyi la nga nuyu internet yi lay yi seetaan ban kàddu nga njëkk a yëkkati tey ginnaaw sa doom yi ñu ubbee boutique Wally Seck ñëw dooleel leen teew ci boutique bi ñu lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm li ma waxoon rek laay wax ci interview bële paase. Mm-hmm. seex yi xam nañu fu ñuy teg seen tànk bu baax a baax butik bi waali ubbi leen awma dara lu ma leen di conseil ndax xam nañ leen wax li ñu war a def xam nañ ndax xam nañ li ne ci seen ginnaaw du seen yaay kese seen yaay seeni mag seeni rak seeni xarit ñépp a ngi seen ginnaaw kon gëm naa ni dinañ gérer bitik bi ak niñ ko waree gérer incha allah bu neexee yaa loolu moom sama xel dal na ci tiituma ci benn yoon te bi ñu ubbee ba léegi defe naa matagul un mois bu ma juumu te ñu ngi nekk ci li ñu nekk te lépp mi ngi tegu ci yoon na mhm. ma leen di ñaanal cet seetlu leen bu baax a baax. d'accord alors yaa ni noo gisee tey euh, ginnaaw Wally Seck bu mu defee geste bu rafet bi. Mhm. waaye itam bàyyi li mu doon def yëpp ñëpp xam nañ ne calendrier am dafa chargé. Mhm. mu bàyyi ay yitte ñëw seet si jumeaux yi ñaanal leen itam euh, naka nga gisee mbir mi. ni ma ko gisee man xam naa ne waali zimo yi jaral nañ ko lu ne man xam naa loolu mm-hmm. xam naa ni zimo afiye jaral nañ ko lu ne ndax ay doomam lañu ay rakkam lañu léppam lañu masha Allah mm-hmm. ndax zimo yi loo wax ñu ne waali waali rek waxuñu leneen lu dul waali ci soxlaam la ñuy dox ci yitteem la ñuy dox ci léppam la dox mm-hmm. loolu moom xam naa ni pour waali ñëw bettu ma xamoon naa ni dina ñëw. man loolu lan nga leen di ñaax naan nag ñu bari ñu ngi taxaw ci ginnaaw. Hmm. naan du dem wala sax boutique bi dañ koy def lii ku nekk ngi wax léegi nag lan nga leen di wax ko defee ñu gën cee bàyyi xel. li ma leen di wax mooy comme nit ñi moom ku ne xam nañu wax rek la ñu baax oh, di wax. Mhm. noonu la ñu mel loolu moom sénégalais fi lañ ko fekk. Mhm. bu nit nekkee ci dara du ñëpp ñoo ciy ànd ak yow am na ñoo xam ni. dañu la koy yéene mm-hmm. am ñoo xam ne duñ la ko yéene waaye ñii ku yabu yéene leen jàmm Zimo Afia yi mm-hmm. jàmm rek lañuy am ndax bu dee ñaanu waajur am nañ ko mm-hmm. macha allah te defe naa ne ñaanu waajur amul lu ko gën a foor te gëm naa ne fii laa toog di ko wax dinañ fi toogaat boutique bi dina jur incha allah ci kattanu yàlla bu neexee yàlla ay yeneen boutique ba bind bi waali ubbi moo jur yi te waali wax na ko sànq defe naa. d'accord alors ban histoire nga ñu nettali ci ñoom ñaar bu ko defee itam euh, euh, nit ñi xam complicité bi nga xam ne am nañu ko. ñoom de mënuma la nettali. yaa may ma benn rek xam ne <laughs> somoon nañ lakkal na lañ doon def ak ñoom moom wax dëgg yàlla waxal lépp déedéet suturaawu ma leen. ci def lañ dëkk de yaay. ñu def. non def <laughs> du ñu ay def kat mhm. du ñu ay defkat kat. waaw du ñu ay defkat xam naa ne daal. kii lu mës a def dara waaye kaay ma wax la ay xale. Mm. <laughs> ay xale moom ku ne xam na ne xale am na jaar jaar. yow mii am nga ko ki am na ko keneen noonu ba ci waaw surtout nag ay jumeaux ñoo ci raw ku ne mm. xam na ne ay seex il faut dañuy doy waar. Mhm. waaye ñi moom jumeaux yu baax la ñu wax dëgg yàlla <laughs> waaw léegi léegi yow booy gis yi ñoom ñuy def interview mën naa mm-hmm. mm-hmm. yow est-ce que loolu d'accord nga ah, rek dañuy fo rek ay xale lañ dañuy fo waaye xam nga ni jabar mm. kenn du ko bokk yow tam. ah man maa bokk sama rafet. <laughs> <laughs> waxal bi waxal bi waxal ah. sama yaay dégg ngeen lu mu wax loolu ay kaf la di xala rek waaw ay xala nag ay fo man benn jour dama toog di seetaan ah. ma jàpp ba war a julli timis wur na yàlla ak ah. yonant bi ma jël sama kool di paree julli dama jékki-jékki rek gis journal seen TV ñu ne Simon Affié jël seen photo affiché ko bi ñu sol mayo kii bi drapeau Sénégal mhm. daan ne jumeau Afia yi ñoo nekk nii kenn dootu leen présenté ci Sénégal jumeau mhm. yi nee na dañu bëgg a takk benn jabar ñu mhm. bokk ko ñoom ñaar léegi nag loolu waa Jamra war nañ ci wax man xamatuma fi kaala gi tege man sànni naa ko ak kii bi lu mu tudd kurus bi sama téléphone rek woote jot jumeau ma ne Assane mu ne ah ma ne ko ce que yëg ngeen ni seen kaso taxaw na Macky Sall dina leen wo de. Mhm. da ngeen doon fo ngeen ne da ngeen di takk benn jabar bokku ko. Mhm. maa ngi Sen TV laa jàkkaarloo. Mhm. dama jàpp woon bay julli waaye gëw ma ni sax mënati naa ko. léegi ñu ngi leen affiché ni da ngeen di bokk jabar xam ngeen ni bokk jabar amul fen mu ne ma yaay bàyyi leen rek ñun ay xale lan dañuy fo mani leen génn leen balaa Jamra di leen woo. génn leen waxaat ni ñun bokkuñu jabar balaa Jamra di leen woo keroog moom moo ma dëfal. ba ma dem julli ci mhm. bis boobu tiit naa trop wur na yàlla ndax lu toll ni télé Sénégal ñëpp a koy seetaan ñu ñu tàpp affiché leen naan dañuy bokk jabar loolu ay folo xam nga ni jabar moom kenn du ko bokk baaxoowul moom fii ci àddina fii mhm. benn nit di bokk jabar ñaari nit di bokk benn jigéen amul fenn mhm. ñoom dañuy fo rek ay xale lañ ko ah, jibo lan ngeen di tëjee kàddu yi euh, bi nag nee na du ngeen waaw dëgg la parce que moom yaay moom wax ba pare ñuy teggi wax. Ah. <laughs> wax mais ñun suñu saay <laughs> da nga dëggal. <laughs> waaw léegi léegi lan ngay wax ci ci ci Wally Seck ak ni fi teewee ne yéen ay doomam ngeen xam nga. te fierté lay am ngeen am boutique bu mel nii mu teew teew Wally. Uh-huh. waaw mais teew Wally parce que bettuñu parce que démb ndeysaan dañoo dem kër gi di verser xaalisu ticket bi. comprendre moom mu wàcc rek ndeysaan naan kafe rek ne ma Zimo Zimo maa ngi jéggalu bu baax mais euh, seen kii bi dafa tombaloon ma nekk Paris comprendre ma ne ko papa yow garaawul paase na munuma mais suba dinaa fa ñëw ma ko yow looy wax ne mun ma suba dinaa fa ñëw barke Serigne Saliou Mbacke te xoolal def na ko kon kooku noonu euh, fu ñu teg moom xam na ko euh, tamit aussi madame kenn du moom barke Serigne Saliou Mbacke sànq la woote billaay walaay tala nañu ndax papa ñëw na oh. man ma ne ko yaay papa de ñëwagul mu ni xaar ma woo ko léegi barke Serigne Touba Mbacke dafa coupé rek waale ji. dëgg la comprendre nga. Mhm. moom mu nekk euh, geste boo xamante ni frappé nañu. waaw barke Serigne Touba Mbacke ba mu ko gisee sama xol dafa sedd. kontaan nga waaw billaay parce que koo bëgg. <laughs> billaay wallaay taala boole wuñ ko ak dara. Mhm. barke Serigne Touba Mbacke moom mu defal ñu teraanga bi comprendre nga mooy seex euh, dama leen a sas. waaw dañoo war a liggéey wax na ko léegi mhm. comme naa yow jànnaare ba nga ko laajee ne ko yow lan ngay dénk seex dañ leen du ma leen wax dara du ma leen dénk dara parce que xam naa leen mhm. voilà mi ngi noonu Diagne kontaan ngeen bilaay bi Zimo kaddu yi waaw Diagne kaddu yi sama yaay leeral na lépp mhm. sama Zimo tamit wax na lépp lu ma siy dolli mooy alhamdulilah loolu laa siy dolli te loolu laa koy tegee alhamdulilah alhamdulilah. Hmm. waaw mais kan mooy ne ci boutique bi yéen seen de. su ñuy dem non de. <laughs> ah non gérer dem ñëw naa fi kenn laa fekk. non bu uh-huh. benn doom bu naan boo uh-huh. waaw ñoom ñaar ñoo fiy toog di gérer. lan lan ngeen di wax yaay tey. waaw yaay lu ñu koy wax mooy moom mu xam ni ñun ñooy doon ku koy teral. Uh-huh. ndax famille bu ne am na biddéew te ñun la yàlla def biddéew bi. ñun incha allah rabbi dinañ ko yóbbu mu ziare yonent bi. si kattanu yàlla. waaw pour l'instant vous n'avez pas droit à l'erreur ah man de wax dëgg yàlla moom nii li ma gis nii sama kanam laa gën a tallu nekk sama ginnaaw. Mhm. waaw d'accord ñu ñaan yaay. ñaan sama yaay mu tëj damay sant euh, Kiné Diaga ci boppam yaayu waali ak moom laay sant avant dara. balaa ma koy sant sax maa ngi koy jaale moomi mhm. avant moomi sax Papa Thione waaye diggante woon naa ak soxna ba jaale ko Papa Thione Ah, soxna ay dara déggante woon nañu waaye moom dégguma ko mhm. maa ngi koy jaale moom di ko ñaanal yàlla na xippee ajjanay firdaws yàlla may ko xolu mu metti na torop waaye na gëm yàlla rek ni moom kenn du ko wax gëmal yàlla ndax defe naa macha allah moom rek ku ne xam na ni mu mel ci Seydina Muhammad bëgg ko ba jeex tàkk ñun ñëpp bëgg nañ ko waaye moom bëgg na ko bëgg bu wér ba ñu xam ko mhm. dama koy ñaanal yal na ko yàlla may xolu muñ te may ko wér ak gudd fan moom tam bàyyi ko mu fekkee njariñu njabootam gi ba ca kanam ak kanam ci barke Seydina Muhammad di ñaanal Waly Seck gudd fan gi wér wér li mu defal zimo yi maa sant di ko gërëm magu zimo yi ñi ngi koy sant rakku zimo yi ñëpp ñi ngi koy sant di ko gërëm lépp lu mu ñàkk ci zimo afiya yal na ko yàlla wutal lu ko te dina ko ko wutal ndax ñii rek zimo afiya rek Wally ñëw defal leen lii ak situation simon Afi ak seen yaay képp ku leen xam xam ni Wally li mu def ñun amuñu fayam fi mu ñu ak fi mu ñu yóbbu amuñu fayam dama koy ñaanal gudd fan bu wér a wér yàlla bu noon mën ci moom dara te du mën ci moom dara ndax dafa am ñaanu waajur di ñaanal nag soxna ay dara yayu Zimon Afi moom tam déggante woon nañu mu wax ma mu am lu ma wax fekk ma am lu ma ko wax mu ne ma ñaanal rek li téeñ bila yan bi ñëwagul kon lim ma doon wax ngi yan baa ngi nii waxoon na ma mhm. ni ma yaay ma ne ko ah mu ne ma lii du dara fekk mu jox leen xaalis bu bari ma ko ko ñaanal mu ne ma lii téeñ bi la yan bi ñëwagul kon yan baa ngi nii waxoon na ma dama koy ñaanal yàlla bu jeeg toogee palaasam yal na ko yàlla sàmm saxal ko ci sëyam sàmm ko sàmm njabootam musal ko ci cat ak làmmeñ soxna daal gudd fan ak wér rek laa koy ñaanal ndax waali bëgg na Zimon yi de waaye soxna kenn gënu ko bëgg Zimon Afia ndax bu demee ba dégganteeg man téléphone di wax ci simon Afia kenn gënu ko bëgg te gis nga boutique bi yëpp soxna la. Mm-hmm. ma wax leen lii lépp soxna la. waali moo ko def de waaye lii lépp soxna moo ko bébé kon dama koy ñaanal gudd fan bu wér a wér na ko yàlla sàmm te aar ko làq ko yàq Thank you.